tuuba na te wàcce néegi dugg ci waañi te jéemu suural lépp lu saf neex wuti ko tey roox soom dax ak la fajaru magal لبلو سافنا غوتكو تايروخ صوم دخاك لا خجرو مقل أتايانا فمك بنانا كوكونا نسوى جلكو مقل أتايانا فمك بنانا كوكونا نسوى جلكو مقل كفير ki suukar fanta ko kaanjar luy dem ci ay biir waajal ci magal ñu afraay xar defar ko bam di dana lay moo baax ci magal wutal ginaar saaf teraaf ko bam boole ci ay yaf ci bisu magal lépp lu sedd neex sell sedd na ko jënd mu dem ci màggal ni ñépp suur lool te mandi lool lool te sant lool ci bisu màggal bu kenn jàmbat lépp na xëy mat bu kenn xeebit lenn ci màggal bu kenn jàmbat lépp na xëy bu kenn xeebit lenn ci màggal na kër na xol yaatu na mbég mi yaatu ci bisu màggal na kër na xol na mbég mi ci bisu màggal dalu sareet yi ak dalu kër yi nan yem ci biir yi na nu ko waajal ne fépp maase neex lépp maase jag ñëpp maase sant kër gi jël yal na nu jékku màggal te jékku lépp te ngëpp ko te mën a màggal yal na nu am jom ndax nu bari ndam lu rëy ci xëdim mi woote màggal jomay nu xam ne sëriñ bi moo ne màggal gi laa ne nanu ko màggal jomay nu xam ne sëriñ bi moo ne màggal gi laa ne nanu ko màggal jomay ñu jàpp sëriñ bi jàpp màggal gi jàpp gu wér te dëggal yeesal barab yi te gan yi jël sun alal yi def ko ci màggal sëriñ bi moomoom alal yi moomoom lépp lu ni yë fonku màggal sëriñ bi moomoom la li moomoom lépp lu ni yéem nañ fonku màggal màggal la fonku nanu ko fonku ku gore fonku bis bi di màggal màggal la fonku nanu ko fonku ku gore fonku bis bi di màggal subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin